salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen wax ni dalee na jàmm seen chaîne Dakar People tey nag ñu ngi fi seesi koo xamante ni kenn dootu ko présenté muy kan muy tonton Lamine Ndiaye tonton Lamine Ndiaye di artiste comédien ñu lay nuyu la bàyyi nga ñëw askan bi waaw sama tur dëgg Mouhamadou Diarra la xam naa sax dana jaaxal nit ñi Mouhamadou Diarra waaw mais Mouhamadou mooy Lamine Diarra mooy Ndiaye fii ci Sénégal mais ah. bu ñu demoon tey Mali euh, dañ naan ma téyel sa jara bi moo gën si ñoom du nangu loolu quoi ci culture euh, bambara bi du ñu nangu loolu mais fii comme tàmm nañ ko euh, te bu ñu fàttee fédération du Mali euh, xam nga bambara yeeg mm. ñëpp jaxasoo woon fii Dakar Dakar gaa boo nekkoon capital bi mm. waaw foofu la bambara yi jógee mm. nekk fa mais ñun ban maa ngi jógee samay waajur bu dee di seet pabu xor la waaw mu xorol ci ndar la. donc euh, bambari foofu la ñuy jaar. jóge fa daal di waddal si yow fii. Hmm. tey boo demee ndar. Hmm. boo xoolee li composé ndar dëggantaan ci wàllu bàyyi laay wax de. Hmm. Euh, sam papa sax turam. bu ma koy wax nit ñi dañuy xaw jaaxle tuuti dañ may laaj euh, souvent ne ma est-ce que du woon katolik waaw parce que turam dëgg Samuel la. waaw. Samuel Aljuma Jara bi mu tuubee jëw fii Dakar en 1920 mm-hmm. donc euh, ci la euh, tabax kër ga fële mm-hmm. rue foofu la dëkk rue 3 angle fii ngeen nekk te sama kër ñaareel la donc euh, moom laa fekk si mm-hmm. dëkk bi fekk si la waaw donc mu yaatu lool ci fan baax lool yiw lool Eh, ba pare nag eh, naguma seer mm-hmm. yàquli lay taalaw rek mm-hmm. moo tax may wax mm-hmm. te seede bii ma koy defal maa koy gërëm à travers vos antennes di ko sant bu baax surtout nag yaayam mu Mbaye ngi Fall eh, nekk koo xam ne ku yaatu la ku mën a uuf njaboot ak sërëm yi sërëm yi laay wax parce que am na sër bu nekk fii am na koo xam ne France la nekk d'ailleurs sax mi ngi fi actuellement mais moom dafa confiner boppam. <laughs> waaw. Ah. Euh, li ngeen bëgg a xam nag ci ban yëpp. Ah. incha allahu rabbi man duma ma daw benn question. lépp la leen di jóoral sur la table muy ci métti bi muy ci famille bi. muy sama dund en totalité waaw. na solo tonton Lamine. Ah, bu ma koy natt ak léegi day mënuma joxe précision. waaye 1972 fekk na ma ma nekk ci théâtre bi disons euh, pour bañ a wala xababal en 70 réellement maa ngi ci biir théâtre bi et bien avant 70 un an avant. Mhm. c'est-à-dire en 1969. Mhm. fekk man dama doon jàng école. Mhm. donc bi may jàng école ba nga xam ni wax dëgg fa yàlla. sam papa 67 la génn àdduna ma wéetoon lool. Euh, théâtre bi dimbali na ma bu baax a baax a baax ci sama dund. parce que du ñu defuñu ko kaf dañ ko jàng dëggantaan. jàng ce que c'est que la règle les trapé pensée parole et plastique. da jaar ci ay euh, yoxo loo xam ne nii. Hmm. wax dëgg yàlla nit ñu am xam-xam lañu. Hmm. ci euh, mbiru théâtre bi moo tax ñooñoo sol. Hmm. li nga xam ne nii jot nañ ko xam ci théâtre ba pare nag. man booba dama daan jënd samay bouquin de théâtre par exemple amoon naa ci benn boo xam ne titre bi la mise en scène not sur la mise en scène noonu la titre bi. Hmm. ma yore ko jàng mise en scène. xam hmm. ko bu baax a baax a baax. xam ci lépp loo xam ne nii ak groupe ni ñu koy téye. yooyu la ñuy def ci not sur la mise en scène. def ci tekk ci ay euh, technique yu bari bari bari bari yoo xam ne boo bëggee def théâtre mm. boo jaarul foofu defe naa ni sa métier du nokk donc note sur la mise en scène j'en profite d'ailleurs mm. pour nga xam ne nii ñoo ngi seetaan mm. te bëgg a def théâtre euh, nañ ko wër def naa bouquin boobu bu nekkul euh, ci parterres yi peut-être bu ñu demee commandé ko mën nañ leen wutal loolu jox leen ko waaw mais dañoo gis ni yow boo joué théâtre dañ ci am fulla ak fekk tamit dañ ci ñàngal foo toll parfois ñu koy gis. waaw xam nga njàngal bi du dara <laughs> mais yar bi moo demee noonu. Ah. ku xam yaru ancien combattant. Hmm. sam papa ancien combattant la def na ah. quatorze dix huit. def trente neuf quarante cinq. Hmm. ñaari guerre yëpp la def. Hmm. bon ba bay juddu euh, c'est bien avant après. Ah. vraiment loolu mais rëccuwuma li mu doon amee bàyyi yu mel ni boobu parce que exigeant ba pare foo ko fekk exactitude mm. il faut nga am loo xam ne nii te nag boole si mm-hmm. foo ma cosaanoo di ndar mm-hmm. ñu tibb fa xam nga doomu ndar ndar bo ak yi ñu koy waxal yëpp mm. ma tibb fa lu bari parce que ndono la mm. donc dama daan def chaque vacance bi may jàng sama papa daf ma daan wax demal nga seeti ji seen mbokk Euh, su musaana dem donc euh, sama kër jaay laay nekk muy Mamar Fall waaw baaxoon ci man ba ma ñàkkee sama ndey mhm. en 1958 moom presque su ma daan dem ndar dafa ma daan uuf moo ñëwee mu ne ma si ñii say cousine lañu say jigéen lañu ne les laisse jamais mhm. da leen toppatoo dégg nga yaay seen góor mhm. lu ñu mënti am daal nañ nga boole ci seen biir yooyu it nga boole leen seen biir si bien que dama daan toog ndar Euh, bu ma ñëwee daf may jox néeg bu ma dëkk. sama néeg sax la mujjee doon ko ñu ngi dëkkoon euh, foofu ci biir Ndar. si je me rappelle si je euh, benn quartier la boo xam ne nii sorul woon ak raay bi. defe naa ni ñu bari xam nañ ko ñu xam Ndar dëggantaan. Mm. man j'oublie parce que dafa xaw a yàgg lii may nett lii. alors bu ma mësaan ñëw. dama doon tëdd nii sama cousine bi ki ñu tuddee sama yaay Fat Fall ak euh, sama maam Ndeye Racky Fall bi jur euh, Eva Mbaye d'ailleurs waaw kooku sama cousine la donc euh, ñoom ñaar ñoo ma daan sax mu tëdd seen digg sama nijaay bëggoon kenn dugg ci kër yi mu Amadou la ma daan wax mm. ku ñëw fii rek na nga ko dàq ñuy say jigéen lañu waaw man ko waaw d'accord man j'exécutais à la lettre tout ce qu'il me disait mm. parce que sentiment bi ma amoon ci moom ak mm. de bon doon insister sama yaram mm. dem na ba nga xam ne nee na ma bàyyi jàng Dakar Dakar day yàq nit gi ñëw fii fii nga dëkk saint man jënd naa kër boo xam boo ñëwee fii la koy jox kër gi am na jardin tabax lu en et tout à côté il y le fleuve donc euh, ci ginnaaw jardin bi moom il s'était préparé à ce que man me retourne sans lui mais bon dommage entre temps euh, moom it mu gaañu yàlla na ko yàlla yërëm euh, jour bi muy gaañu fekk na sama grande sœur bi ma am aussi moom it gaañu na trois jours avant bi may dem pour sama grande sœur yàlla soo nga xam ne sama yaay jooju gaañu na donc euh, gis nga rek ni àddina di demee donc voilà macha allah am solo. li ngay euh, ñu waxtaanee itam euh, dafa mel ni fii nga nekkoon jamonoy tey. waaw nga nekk. waaw waaw balaa nga nekk si daaray Kocc. waaw musuma bokk euh, daaray Kocc. Mm. waaye samay xarit lañu samay am di jàmm li ma booleeg daaray Kocc bi may joué man ak Dieng Astou. nijaay <coughs> Cheikh daf ma gis si woon. Cheikh Diop ñëw nema ma dafa am rôle boo xam ne dama ko confié woon Ibou Laye mais comme euh, jouetu ko sama xel dem ci yow ma bëggoon nga ñëw jouel ma ko man ko ci bu rafet boobu pour man dans mon intention mooy problème bi nit ñi doon jéem laam-laamee naan daaree kot ci jamono tey fii daaree kot xam nga jamono jooju fekkoon ne nit ñi di wax di wax di wax j'ai voulu prouver au public ne leen ñu ñaar ñëpp ay doomu ndey lañu que bokk y a pas de gêne ni absolument rien suñu diggante toujours nag dana mës a combattre loolu ki may seede mooy Khady saw benn xam na ma bu baax a baax a baax a baax sur ce plan la bu ñu daan toog sax di répété ñu naan waaw daara yu Kocc nga ma commencé wax may leen eh tey leen seen ndam yi du ñu seen noon noonu dégg nga man j'ai jamais voulu ça wujje bi ñi ko defoon seen bopp ñu laa doon daq pour won leen ni wujje amu fi eh, nañ ñaan yàlla rek comme Sénégal lañu tax a jóg lu waay def muy jamonoy tey di daaray Kocc ah, ñu ñu ñu approuvé ko pour le Sénégal. suñ ci am ndam ñun ñëpp koy bokk suñ ci am leneen it lu safaanoog ndam bi mais ñun ñëpp ñu bokk ko rek te xam ni c'est la même famille buñ ju réerle bu ñu fab nopp bi teg ko ci biti ay parce que nit ñi leen di boole le plus souvent ci biti lay jóge bu ñu nangoo te amuñu ay armes yu wóor dëgër ci bopp billaahi koo gis muy dem mën nañ ko booleek moroomam ci dara du tuuti rek Sénégal a mel noonu wax jee bari bu ñu mënoon téye wax ji ci diggante nit ñi wala di maandu dana baax lool man ça moom je tiens waaw alors bu njëw euh, ne ma nijaay laa bëgg nga defal ma mënu ko waaw nijaay nu mu demee mu génn scénario bi jox ma Cheikh ci xalaatam yooyu moom texte bi sax da ko daan bind billaahi ku baax la aussi tamit man li mu jëflante ak man mm. très sincèrement maa ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na ko gënal fuuf fuuf fuuf fi mu jógee mm. ëllëg du añ du reer waaye lu ma ta séddale dama koy fekk ji mm. lu ma koy séddale lan na doon dëgg billaahi wallahi taalaahi ci ni mu kii ak man jëflante man jëflante bu leer bu jiw bu baax jusqu'à présent nag man mi ngi suma xel mais man bu nekkee sama xel dama koy ñaanal saa yu ma jullee ba ñaanal ko ñaanal samay waajur ñaanal mbokk yeeg ñu dul sama mbokk man ñépp lay ñaanal wóor na sama jabar ji tëdd